moi, je ne me cache pas. C'est bon. Euh, président, qu'est-ce que vous comptez faire mais, mais, mais, on ne fait rien. nous interdisent l'accès. Ils disent qu'on en rassemblement. On n'est pas en rassemblement, moi je suis seul. Vous me, vous me filmez, non Je suis seul, au contraire, c'est eux qui sont en rassemblement. Voilà. Mais nous, quel monde nous terre dem ci sénégalais yi wax seeni problème nappkat yi dañu sonn amuñu jën moo tax ñu sol suñu dàll ñëw ci ñoom kenn duñu tere ñu ñëw wax ak nappkat kenn mënuñu koo tere vous pouvez rendre compte rendez compte à vos supérieurs supérieurs que Bougane était à Mbour j'ai été à Joal j'ai rencontré les pêcheurs wax nañ ma seen ay jafe-jafe géej gi bu amul jën il faut ñu xam kan mooy responsable et le responsable aujourd'hui mooy ñi signer ay accord de pêche responsable bi aujourd'hui mooy ñi permettre ay bateau ay bateau tubaab ñu jóge fële ñëw ci Dakar ñëw ñëw si suñuy géej di lekk suñu jën di jël suñu xaalis di ñu toroxal toroxal mareyeurs yi toroxal euh, nappkat yi toroxal waa Sénégal voilà. d'accord voilà vous vous pouvez transmettre ça.